ليلة المولد الذي كان لدين سرور بيومه وازدهاء هل يا ربنا وسلم على ما هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمة وضحاه ليلة المولد الذي كان لدي نسرور بيومه وضحاه صل يا ربنا وصل على ما هو للخلق رحمة وتوالى البزر الهواتف أنقاد ولد المصطفى وهاك الهناء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah seydina muhammadin seydil awalina wal axirin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wala quwata illa billah wa ma tawfiqi illa billah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yokk ay leer ak tëbb mawlana cheikh ahmad tijaani radiallahu anhu xalifaam bu mag bee mag mooy Mawlana Cheikhul Islam Alhaaji Ibrahima Niass radiallahu taala anhu ñu ngi nii ak suñu sëriñ suñu soppee suñu baay Seydi wa Mawlaaya sang Aboubacrin Barhamu Niass Ndiaye ak Sénégal yi ak Saloum yi ak ci émission waajal gàmmu international Medina Baye édition deux mille vingt quatre mu nekk nit ku baax di mu muqaddamu Cheikh Ibrahim di ko liggéeyal ci àdduna bi yëpp liggéey bu rafet ñuy ñaan yàlla yàlla yàlla fay ko yàlla may ko fan bu gudd lool ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim kon képp kuy auditeur wala auditrice bu euh, Barham Universel Média ñu ngi lay nuyu di la ziara tey suñu invité mooy sang Barhamu Niass Ndiaye aousu billahi samil alim min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah alhamdulillahi alqudusi fi xaybil haahooti almutajalli bil asmaai wa sifaati fi hadrati laahooti almacbuudi fi aalami aljabarooti wal malakooti wannaasoti wasalaatu wasalaamu ala manin basatat fiihi aasihil maratibil xamsu wa ala kulli man amana bi min al jinni wal insi wa bil xaqi ansalnaahu wa bil xaqi nasal ahlan bi mihrabil wujud ahlan bihi aynu shuhud ahlan bi salikal wadud wa naasili munasali ataytu li baytillah walbiiri wassafa li asha wa qasdi an ara mansilan nasal nasala rabbi li yubayal mala bi mal il hajji xiina nasala saral mustafa laylan wa waafa bi xamsatin arajna biha walfadlu lil mutaqaddim kon mbokk yi ci lislam ci limaan ci lixsaan waaye ci lixsaan lixsaan ñu ngi nuyu umma islam bi yàpp fu waaye mën a nekk ñu ngi lay jox loxo di la tatagal di la ndokkeel ci weer wu tedd wi jublu te mooy weeru Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñu ngi nuyu ahlul tariqati tijaniya bu Mawlana Cheikh Ahmadu at Tijani radiallahu anhu mi nga xam ne moo ñu anel tariqa boo xam ne mooy tariqa Mahdi Fadil wa Ridwan waaye ñu ngi nelu faydu ibrahimiya di nuyu Cheikh al Islam di ko ndokkeel di ko ndokkeel lool comme moom nim ndokkele boppam ci yaru tedd wi ñu ngi koy ndokkeel ñu ngi koy bëgg ñu ngi koy sop lépp lu mu ndokkeel yunt yàlla Muhammad jéemee ko ci moom ñun ñu ngi koy ndokkele lu ëpp loolu ndax ñun dañuy boole bosam ak bu yonent bi di ko bëggee ci loolu Cheikh Ibrahim alayhi salaatu wassalaam wala nga ne radiyallahu anhu li nit ñu gën a miin ñu ngi koy ndokkeel ci weeram wu tedd wi nga xam ne mooy dëgmal si te moom moo ko waxoon boppam ani an li ibrahima laaha hilaaluhu hilaalun bada li naasirina jamaaluhu hilaalun rabii fihi jaa muhammadan fatammalana albushra wa hamma nawaaluhu li afdali ardi xalla afdala mursalin bi afdal yawman fastabaana kamaaluhu xad ixtira min kulli hawalimi asluhu ñu ngi koy gërëm moom Cheikh Ibrahim ñu ngi koy ndokkeel suñ xol mu ngi sedd ci moom mbokk mi yaa mi jëmee ci soppe bi yàlla bi nga xam ne mboolem lu yàlla bind moom moo tax yàlla bind loolee ci jëmmam ji ñu tuddee alxaqiqatul muhammad ya mooy awul ta tajali njëkk loolu yàlla bindul dara gannaaw loolu tamit li yàlla bind ci loolu la koy bindee kooku nag mooy barsaqal kubra bu mag bi kooku mooy ki nga xam ne Baye Niass jàngal na ko jàngale bu rafet mu ne fa xaqiqatuhu alxaqiqatu aljaamiatu lil xaqaayiq li annahu huwa al awalu wal axiru wa zahiru wal baatinu loolu doy na kéemtaan ñu ngi ndokkeel seex al islaam ci wax jooju yonte bi nga xam ne nag moo nañu préparé ab bisam ñu koy tuddee gàmmoo jullit yi la yàlla waxoon rek lu wala boog leen sam waxoon ñaar ñëpp wax nañ insa waxoon na ne al muslimu aqul muslim jullit daal mbokkam mooy jullit jullit daal mbokkam mooy jullit ana kan mooy jullit insa islam waxaat ne mu al muslimu man salima muslimuna bi yadihi wa lisaanihi jullit dëgg daal mooy ku musal jullit yi ci làmmiñam ak ci loxoom te moom mi koy digle yàlla moo ne ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yërmaan yàlla bëri boobu nag dëgg-dëgg mazhar zahir biñ xam tëjli bi yàgg na waaye fi mu nekkee mazhar nag ci makkatal mukarama ci diggante ñaari waajur yu tedd Abdullahi ak yi suñu maam Aminata ñaar ñii ñoo meñ yonent Yàlla Muhammad sallallahu ci zahir yonent bi sallallahu alayhi wa waaye yonent nag ëpp na loolu waaye ci lu lay mën a waxe ndax loolu la nit ñëpp xam loolu la nit ñi gën a attan ci wax yi kooku la ñu préparé bisam ñu koy wax gàmmoo gàmmoo nag jullit yi am nañ ci werante am na ñoo xam ne gërëm nañ gàmmo lool di ko def ñoom yemuñ ca def ga waaye dañ ko defal pa di ko defloo seeni nit di ci fere lu bari ngi tara ci ay jaamu yàlla am na it tamit ñu ko weddi lool nag biddaal ko ne gàmmoo du dëgg wérut waaw man nag danaa ci alil dalil ne gàmmoo lu war a am la lu ñu war a def la dama wax rek ne alxuraan moo naqee dégg rek ku nekk rek da koy dégg déggu démb waaye doo ko dégg déggu tey borom bi subhaanahu wa taala su waxee ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa taslima man yàlla ak samay malaaka yépp jul nañ ci yonent yàlla moom alayhi salaatu wasalaam yéen ñi gëm yàlla jul ci moom loolu waxala la de waaw dañ ko mbëmbëstar nii rek waaye wax bu yaatu la dèjà question yi bëri na ci foofu trop julli yàlla ak yonent bi julli yàlla ak malaaka ci yonent bi lan la julli googu lan la te yàlla mu ne mboolem ko gëm yàlla jul ci yonent yàlla moom salaay salaam naka ñun nañ sëlmal waaye yàlla moom du sëlmal ndax yàlla moom xatru it lax la nekk inu sam it lax la nekk ñaar ñooñu bàyyi ñes nee na fu yàlla yàlla nga egg rek inu sam egg fa kon ak sëlmal ci moom yontu bu rëy boobu nag moo ñu waxoon ci hadis bi mu rëy hadis boo xam ñëpp jàng nañ ko te ñëpp kenn jëmut ko mooy atahaddasu bi nihmatillahi zukurun wa tarkuha kufrun waxtaanee xéewalu yàlla yi xéewal yàlla yi waxtaanee ko yoon salaam mu ne mooy gëm yàlla waaye mu ne nag bañ ko waxtaanee nag kaafir la ataxaddasu bi nihmatillahi zukurun nee na waxtaanee xéewalu yàlla yi mooy sant yàlla subhaanahu wa mooy sant yàlla bañ koy waxtaanee nag di ko weddi mu ne kaafir la weddi la watar ko ak kufrun xadis la boo xam ne bu saxe bu wér ñëpp d'accord nañ ci bi ah waaw bu yéen sama waxee lii Alxuraan tamit wàcc ci aaya ne man na Allahu ala mu'minina is baas fi mu rasul nga ne laqad man na mooy yàlla xéewalal na ñi gëm yàlla wàcce ci ñoom yonent bi yàlla boo xam ne seen bopp la génnee yonent boobu ñëwee lan mooy njariñam daf ñuy xibaaral mboolem xam-xam xikma yi daf ñuy xebaaral téere bi yàlla bi yëpp alquran daf ñuy xibaaral mboolem xam-xam boo xam dana jëñ àddina jëñ àllaaxira danañ ko xibaaral hmm? wax dëgg yàlla yontu boobu kon bisam comme bu ñëwutoon loolu da am te bu ñëwee loolu am kon bu ñëwee comme loolu am na ñun war nañ ci moom sant yàlla ci moom du dara loolul bis gàmmoo jot comme na ko suñu sëriñ daan defee Cheikhul Islam Alaaji Ibrahim bu gàmmoon weer gàmmo terwaan rek ndeysaan saan ko bëgg a nax ci yoon mën ci yonent bi ay doomam dañ daan toog dem ci moom sax di di xeex xeexlu de mero mero lu bàyyi lu xew ñu ne ah kii mu ne nangam kii mu nangam ci yonent bi su ko def bàyyi ne yëkkati alal may leen ngir bëgg Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg yonent kon kooku fuglu na dëgg-dëgg lan mooy bis yonent sallallahu alayhi wasallam bii. te it yàlla moo nañ ko foglu laqad manna allahu ala mu'minin is baas fim rasul waaw kooku nag ba pare la ca gën a garaaw mooy yëllu ali ayat yi wa yuzakkihim wa yuallimum kitab wal hikmata bin kaan min qabl la fa dale mubin njëkk yonent sam di ñëw ñëpp ñu ngoon ci dalal réer la fi dalali mubin waaw koo xam ne balaa muy ñëw ñëpp ngoon ci leen mu réere yàlla ñëpp nga jaamu yàlla moom mu ñëw orienté mbinaafoon yëpp ñu del ci yàlla subhanahu wa ndax ki yéwul ñu ko sant ko ahan kay nañ ko sant alquran mu ne la in zakartum la asidannakum wala in kafartum ina sabla sadid sant bi du dara lurul ñu dajale benn bis mooy bis bi mu juddoo ci fukki fan ñaar ci rabitul awal ñu daje ñun ñu dajee ñun Medina Cheikh Ibrahim suñ dëkk sëriñ suñ dëkk sang dëkk bu tedd dëkk boo xam ne dëkku xam-xam la dëkk la boo xam ne mooy dëkk la boo xam ne mooy maxalu nasrullahi fi xalqihi dëkk bu rëy ci wàllu diine ci wàllu lislaam kooku nag nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima nag radiallahu anhu daan na wax moom ne daan lay gàmm moom ci bindam ci waxu boppam ci alquran mu ne gàmmoo am na nastu am na alquran am na aaya yu lay ci gàmmoo mu mel ne dañ koy laaj bàyyi ban aaya moo ñu layal gàmmu su ko defee bàyyi daan na jël wa kulla naqsu aleyk min an bàyyi rusuli maanu sabit bi fuadaka loo rek doy na mu ne leer ci gàmmu mu ne yow yonte Yàlla Muhammad danañu leen nettali xibaaru yonent yi paase woon démb ngi dew soxalu mën a dal ngir yow sa xool mën a dal waaw bàyyi na kon question bi mooy bu fekkee yonent am muur yi mi nga xam ne moo gën a mag moo gën a mat yonent yi ci lépp moo tax yàlla amul yonent yi ci lépp yonent bu am accès ci moom sax jafe na waaw ku mel noonu nag nga xam ne rëy noonu nag yàlla ju xam-xam yëpp yónni ko ci mboolem bindaa foon yi waaw mu ne kooku nga xam ne yàlla daf koy fàtte xewar yonent yi rek xolam man ca dëgëree mooy naka ñun yi nga xamee ne nag duñu ay dara. ñu ay taalib yonent rek lañ ay jaam yàlla rek lañ ndax ñun tamit ku toog di ñëw waxal xibaar yonent bi ay mbaaxam ay jaar-jaaram ay tasrufaatam ay tanasulaatam ay ay ay manaasilam ay maratibam ay maqaamaatam yu rëy yooyu nganda yooyu nga koy leeralal jaar-jaaram yi yëpp nga tegal ñu ko di ñu ko leeral ba xol yëpp tooy ci loola ndax li war naa nekk lu ñuy sikkal non je dis encore une fois non ñëpp dañ ci war a bég ci lii ndax léegi amul benn xibaar amul benn daje bu a foor daje bi amul ci àddina ci islam daje yëpp bi ci gën a foor mooy bii buñ fàtte ne yonent am salaam buñ fàtte ne la waxoon rek te nit ñu ba di ko weddi mu ne euh, laytu qadar ñu koy wax weeru ko laytu qadar ñëw na ci alquran inna anzalnahu fi qadar jàng nañ ko ñun ñëpp. waaye bàyyi mu ne foor na lool ndax Alxuraan tudd na ko ñëw na ci weeru koor waaye mu ne loolu yëpp nag màggal judd yonent am moo gën a foor soo ko waxee koo xam ne xamut dafa am problème ndax lii dafa ñëw nas la ci Alxuraan mu ñëw ci encore ci diini islam bii nag nekku dafa mel ni ñëwuñ ci islam waaye li nga xam ne su amutoon dara du am waaw ndox loolu ndax loo amam gi gënul am yépp loo xam ne moom bu ñëwutoon jullit du ñëw asaka du ñëw koor du ñëw xaj màkk du ñëw comme ni ko xamee ñun nii tey comme ak ñëwam yaakaar naa moo gën a for lépp lu dul moom kon màggal ko moo gën a màgg lépp lu dul moom xormaal ko moo gën a am xorma ci lépp lu dul moom yow mi ne yonent bi sam nit la comme nit ñi man sab naa la defi man wéet naa la yonent sam nekkul nit ñi comme nit ñi ndax loolu Alxuraan ko ba tey du hadiis sax nag yàlla moo ne moom awlaa bil mi min anfusihim yonent yàlla sax moo la gën a yeey seen bopp yéen ñëpp képp kenn ci yéen ko gëm yàlla rek la wax képp kenn ci yéen ci musulmaan yi que nga gëm yàlla yàlla mu ne yoon sax moo la gën a yeey sa bopp kon kooku nekkatul nit comme yow déedéet nekk ñàkk nekk nit ndim nekk nekk nit nit ne comme yow du sa morom moo waral moom dafa ñëw julli nga julli mu woor nga woor mu asaka nga asaka lim def yëpp yow da ko répété ci moom yow moom ripp moom jàngul ci yow dara yow yaa jàngee ci moom lépp waaye ki nga xam yaa jàngee ci moom lépp nag ak yow mi nga jàng ci moom no no noo de bëgg ko foor loolu sama ay waxu ñumte la moo tax borom xasida ba nee na muhammadun basharun laa kal basar bal huwa kal yaquut benn xajar yun salaam daal dëgg dëgg mbindaaf la ko mbindaaf foni waaye wallaahi du mbindaaf la ko mbindaaf foni ni mooy wurus yaquut gën a foore oggu suuf loolu yuntu gën a foore mbindaaf foni kooku moom loolu la wax waaye suñu waay yi moom bi mu ñëwee nga xam ne moom yonent bi nee na moom gën ko bëggee ndoo gën koo xamoon dafa xaaram sax nag moom dafa wax ne muhammadun basarun wa laysa kal bashiri shir fi xaqiqi yi wa rabbi taxasu maaw sot tot tot mu ne muhammadun basarun mu ne muhammad daal basar la waaye nag laa basar de du basar comme basar yi de ñu ne ko tax mu ne shir fi xaqiqi yi mooy soppandiku gu xaqu bi xaqu bi ni muy soppandikoo ci moom waaye war a bi taxaa su maxaw xaqu mooy yàlla ni mu soppandikoo ba yonent am loolu nit simple boo ko waxee daf koy weddi lan moo lan yàlla gi mooy yàlla moo fi nekkoon démb dara amul lu dul moom foofu ay melokaan yi amaguñ laa sifatan wala isman wala xilaafatan wala ayne wala kayfiya borom subhaanahu wa taala bëggul ko wéetali ci nekkam googu def tëjli zaati li nafsiha bi nafsiha tëjli boobu nag mooy mooy yunte almasal foofu mooy xaqatul muhammadiya yun sam seetu ci seetu ba gis may ko yàlla may murus bàyyi na yàlla may na ko jëmm ja foofee may ko melo ya may ko tur ya may ko jëf ya may ko jeexatale waaye ne ko ne bu la xam maa yàlla waaw waaw waaw waaw loolu xel dana ko nangul waaye it nag xel dana ang lem lemu ba jeex door a gis li yàlla li li baay di wax dafa mel ne nga ne ma misaal laay joxe neenu ginaar baa ngi nii cuuj bi amagut nen ba boo ko tey doo cuuj bi ah cuuj bi mu ngi tëbboo ca nen ba ca maqamam xubbu di yam nen ba mu ngi tëbbee cuuj ba ca maqamam rubbu bi yam bi mu demee ba rububiyatu bi ak xubudi bi jaxasoo léegi ma nen def ta yi jël turam wa jël jëmam jëmam nen ba may ko cuuj ba jël ay melakaanam may cuuj ba jël ay turam may cuuj ba jël ay jëfam may cuuj ba jël ay jeexitalam may cuuj ba naka nag cuuj ba bu la mukk may nen <laughs> waaw waaw du may nen parce que moom cuuj la waaye nag soo bëggee tey nen ah fooy dem da nga topp cuuj moo tax cuuj boo waxoon nag ne qul in kuntum tuhibbuuna nan fattabi'uuni yuhbibkumu nen bu fekkee da ngeen bëgg nen bëgg leen topp leen man cuuj rek nen bëgg leen moo tax rasulullah salaam mooy tamit bi mu jógee ci àll noonu bi mu ñëwee màkk loolu wax dafa ne qul in kuntum tuhibbuuna llaaha fattabi'uuni yuhbibkumu llaah bu fekkee da ngeen bëgg yàlla bëgg leen topp leen man yuntu yàlla bëgg leen donte nag yàlla may na ko léppam waaye ne ko mu tëdd ko jaam cheikh ibrahim ñi radiyallaahu ne la waaye sang la hubuudatuhu maqruntu bi siyaadati moo ne njaamam gi ak sangam gi dafa dajaloo dafa dafa dafa tàppale ko nekk benn mu mel ne tey cuuj cuuj ba tamit nen ba rubo bi yee bañ ko doon tëbbee ak xubari gam doon tëbboo jaxasoo na ten ten nen moom nen rek la woon waaye cuuj na moom ni ko na cuuj nekkaa na nen cuuj moom dafa boole nen ak cuuj bi encore boole ci te nen moom nen démb nen rek la woon parce que boo bëggaatee nen ci cuuj ngay toppaat radiyallahu anhu kon ñu ngi sant yàlla baax ci wax yi parabole bi rëy na lool nag waaye loolu yëpp nag li ci gën a doyati waar gàmmoo Cheikh Ibrahim baay ak gàmmoo naka la baay moomee gàmmoo naka la baay daan gàmmohee naka la baay daan def ci weer gàmmu su feeñaan wax naa ko léegi tagg na ci boppam tagg bu rëy xane il Ibrahima waaye li gën a garaaw mooy baay dafay wax ne man soo gisee yonent yàlla ma ciy fiir nekkoon naa moom ab jamono boo xam ne dara amul lu du man moom rek tey encore ni ko ñoon ñaar bocc su ma ne man ak moom na day mel ne man demee nag mu nekk te fekk pourtant ñun benn jëmm la ñu woon kon benn jëmm ju nekk ñaar nekk mun naa am bu nekk ñaar mun na am hmm, benn bu nekk benn jëmm ba pare nekkaat ñaar ah kay mun naa am foofu la bàyyi waxee wax ju rëy ji nag joo ngan da nga xam ne kurul taalee bàyyi soo ko déggee dana jaaxal. bàyyi na xat ahbabtuhu xata araaniya kuntuhu wa rabbiya lam yox la makaanan wala waxta man baay ci dëgg-dëgg bëgg gën a yonti bëgg ngel bëggel ko xam ne ba gis naa ne man maay moom mooy mooy mooy man te foofu ñaar amuñu foon bëgg naa ko di ko bëgg di ko bëgg bëgg ba gis na man ki may bëgg man ak moom benn jëmm lañ xataa araani kuntuhu wa rabbiya nag fekk sama borom yàlla lam yox la makaanan wala waxta bindugul jamono mbirugul barab makaan makaan mooy li ñu mën a palper jamono loo xam mënuñ koo palper bàyyi mun yàlla lii sax amagutoon léegi nag luy jamono ak luy makaan fii ñu toog nii tey nii jamono la waaye mënuñ ko mënuñ ko palper mënuñ ko gis makaan bi nag mooy fi ñu toog moom mënuñ ko mu ngi toog mooy fi toog nii ci magasin bi loolu yàlla lool bàyyi jàngale foofu la yoo xam makaana wala waxta waaye ba ci am war a sax mu dee waar waaye bàyyi dafa continuer wéy bi fa jaabartu taaha ahmad al badri nasri dëkk na ak taxaa <laughs> dëkk na ak taxaa fee moom ak taxaa loon ci jëm yàlla ja fii moom taxaa la dëkkal moom directement rek taxaa sallallahu alayhi wa sallam kon beneen pays ñëwaat na fii mooy alxaqatu muhammadiya ba mu yàgg bàyyi na fa jaawaruhu shiri dëkk na ma encore ci samay wëy wëy yi nag foo ko fekk wëy kii ma mooy Cheikh Tidiane yi foo fekk ab yaat buñ wëy dama ne asma yëpp mooy saahibul asma mooy Cheikh Tidiane wa xallamal aadama asma kullaha loolu yàlla war ñu tal aadam te saahibul asma mooy Cheikh Tidiane radiyallahu anhu tawa jaawaru chenri dem ba mu yàgg bàyyi xëccaan mbir ci boppam nag ma ne waa nii <laughs> baytaa dëkk na ak moom man yonent bi sama kër man Cheikh Ibrahim kon kër yàlla kër yonent bi kër Cheikh Tidiane kër Baye waa jaawari nii baytaa bi liy mooy ne Baye dafa jeexal Baye na déedéet ba daali muhayyaa u wa man naala sirral Mustafa aksara samta yéen sam war na ma xar-xaram ba ak moom kon ñu ngi sant yàlla baax ci lii yii woy ku ko dégg war nga xam dara la fële yàlla bindagul dara fole mu nga dëkk kër yontaal Mahamad fële mu nga dëkk ci ay woyam kër Cheikh Tidiane fii mu nga dëkk kër Baye Niass fii mu ne yéen sam war na ma xar-xaram ba ak moom sallallahu alayhi wa sallam yii hadaraat yii lan la te lii woy baale si yontaal Mahamad sallallahu alayhi li nga xam ne mooy gàmmo international dafa lu ñu tuddee national am lu ñu tuddee international bàyyi nekkul national bàyyi mooy international lu ciy preuve Cheikh Tijaan radiyallaahu anhu bi muy joxoñ bàyyi ci ay isaaram ci tàddi fidu al asab dafa waxoon ne fooy dina ñëw ci samay loxol taalibi su ñëwee mboolem bindaa foon yëpp dañ jokk ci moom mboole xeet yi Cheikh Ibrahim nag yaakaar naa moo remplir mission boobu moo ko remplir remplir bu leer amul benn réew boo dem ci àdd bi tey fekk ko taalibaay nekk foofu te encore doomu réew ma ñoo fay nekk doomu réew ma ñoo nekk taalibaay du ñu fa tukki de doomu réew ma ci boppam ñooy nekk taaliba Cheikh Ibrahim bàyyi boo demee mboolem xeetu lakk yi boo demee mbir na bàyyi ndeysaan gàmmu nga dem mbir na bàyyi da ngay kontaan da ngay sedd sa xol day sedd da ngay dégg ay lakk yoo xam ne xamoo si dara nga dégg ñuy door te kenn ku nekk ak sa wax te xamoo la muy wax kan te kenn lay fa mooy Cheikh Ibrahim kon nag buñ ne inni Ibrahima kaana ummatan qaanitan lillah wax dëgg yàlla bu ñu ko mënee istaan war gërëm yàlla Ibrahima umma la Ibrahima inni lillahi kon bàyyi dëgg-dëgg nekk na ummu parce que ummu bi yëpp te loolu la bind moom wal ummu te xasti fii humu an asuqhum ila hadabar rahimi ilahina man bàyyi ummu bi yëpp dama leen màng xànd ak ñoom puus leen bañ dem ci pi yàlla subhanahu wa taala lii mooy suma liggéey man Cheikh Ibrahim aywa bàyyi dem na ci àdduna bi yëpp mboolem cinq continent ci àdduna bi continent yi cinq lañ benn bën a bàyyi taxaw na fa yëkkati fa kàllama tawhid laa ilaaha illa moom rasulullaay dugal nañu ci islam dugal nañu encore ci tariqa tijaaniya dugal nañu encore ci faydu ibrahimiya loolu bàyyee ko wax te moo bi barrin wa bahrin qad bahasu madaihi wasal yow ma astu fil hawa mutajamjima bi barrin lan may barru wa bahrin lan may baxru barru baxru mooy barru mooy jéeri zahir bi mooy loolu rek nag waaye bu ñu bàyyee ne bi barrin mooy géej yonent ama sa islam bi barrin bi bi barrin mooy mooy géeju Cheikh Tidiane wa bahrin mooy géej yonent ma sallallahu alayhi wasallam mun a xat baasu ma daayi man bàyyi joolaan sama tagg ci ñoom joolaan sama tagg ci yonent Yàlla Muhammad tagg naa ko ba tay tagg naa Cheikh ba tay tay na man bàyyi maa ayee wasal yow ma asdu fil hawa mu ta jëm-jëma tay man baay maa ayee maa ngi ci kaw jaww ji man di di di di tëgg ay woy sànni ay yow man ci kaw jaww ji man Cheikh radiyallahu anhu loolu lan lay doon xam nga ne kon lii wax bu rëy la mu ngi mel ne yàlla waxoon na ci alquran rek wala kad na bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri warshana min tiibaat wa faddalna ala kasbi min xanaa tafdilan ay bii ak wuyu baay bi benn wax la yàlla mooy tànnal doomu aadama bi maa ko tàggatoo géej gi ak jiir ji luy géej ak luy jiiri bu dee bu zahir bi li xam na géej ak jiiri muy lii rek loolu tooy xam na ko naaf yi xam nañ ko julli xam nañ ko ñëpp xam nañ ko waaye bàyyi yun yàlla fi mu waxee ni fii géej googu mooy géej gan ak jiir ji mooy jiir jaan wala xad karramnaa banii aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri bu na zahir la yéefar ci ëppal doole nda géej gi zahir gi yéefar yi dem di jënd di dindi lépp di ñu ko jaayaat or yeeg jamaay ak yëpp jër ji kasaale ko ñoomam téléphone ñoomam lépp waaye yee fi bàyyi fii Alxuraan di waxee nii ku xamul géeju xaqatul muhammadiya ku xam géeju xaqatul ahmadiya xamoo ci géej gi dara kon julli yee ko moom radiyallahu anhu kon lii mooy bàyyi woy li bàyyi woy ak li yàlla wax waa benn lañ bàyyi radiyallahu ci karamaam ci xam-xam bu rëy Alxuraan ma nga wàcce Màkka yun tam san san ma nga taxaw Màkka yàlla di wàcc ci moom alxuraan yàlla wàccee aaye ci moom lii nii dañu war a xalaat dañu ci war a xalaat alxuraan nii di wàcc Jibril leen ko jox yun teel mu ngi wàcc ci moom nii yàlla wàccee aaye na ko Isa jaa Isa jaa mooy bu dikkee te kii dikk na dikk ba pare bañ ko wàcc bañ wàcc moom ci aaye aayaa ngi di wàcc ci moom kon kay dikk na ba pare kon iss ce que Isa jaa la waroon wax. yàlla nag ne isaa jaa bu dikkee nasrullahi ndimbal yàlla li wal fatu ak futuhaat yi ak fatu yi war a ayete nga gis naa sa nit ñi yeddu ko ñu ngi dugg fi diine laahi ci yàlla ji afwaajan afwaajan diine yàlla nag ak diine islam man ñaar laa ko def <laughs> donte islam diine yàlla waaye is islam li fii diine islam la fii diine yàlla la wax diine islam mooy charitu muhammadi bi diine yàlla nag mooy <laughs> egg ci yàlla ba xamee ba fëgg daan daan anam walaal diine yàlla ki ko indi mooy Cheikh mais fana fi laay wa taala diini islam kii indi mooy tam sa islam bokkuñu ma xam kii cara la indi kii xàqee te loolu leer na yàlla bi mu waxee ne isa jaa nasrullah pare bàyyi moo dafa feeñ fii Sénégal bind bàyyi moo day bind li gën a garaaw mooy day bind daane waxat jaa nasrullahi wal fathu wan tahadijul kufri wa tuxyaan ija ahmadu hmm, waxat jaa dikk na nasru ndimbal yàlla dikk na te fee ndigeef la fii bàyyi kon kay dëgg la wax dëgg yàlla fee yàlla fa dégg mbir ne ne Issa Dia bu dikkee bàyyi ñëw fi ñu ne dikk na ah waxat jaa wal fatu wan taharjul kufri wa toxyaan ija ahmad ñu ne ko bàyyi yaa ahmad mu ne waaw waaw suma nuudi min hadru qudsi yaa ahmad faxruj yafoo su min kan animu bàyyi kuy ahmad mu ne fa ahmad baabullahi wal qas na waaxu wa balaxaan tanzilan ma saada ma naqas bàyyi kuy ahmad wa ahmadu siru zaat wasaatu sirruha tasawaa ala idrakihi jëlde waxina kuy bàyyi mu ne bi kën siyatin nag qad kunta qabla taxarufin taxarraka min sirri ma kana sakinan waaye bi saakal bada tasjiitu min nahwi sirrihi wa uliqtu man saaka samani ilahuna zamani fi makkani wa makkani fi samani ñu ngi gërëm Cheikh Ibrahim ñu ngi ndokkal Cheikh Ibrahim laaw ci gàmmu gi lii mbiram la parce que moom ba ma dem na sax banaan man di ma di ma tëkkale nit ci bëgg yontu bi mbaa xam yontu bi la woon dafa haram mustahil ah fa man raama darkii fi ishtiyaaqi nabiina faqad raama amran mustaxilan muharama am na téere bi ne mustahala muharama waaye mustaxil la mustaxila muharama la loolu la mën na bàyyi ma tëkkale ma kenn ci bëgg yónte maa xam yónte bi dafa haram lu tax mu haram parce que man ba muy nekk yónte salam boobu nit ñi amaguñ tey la neex rek wasum ti fi essence samaan rek tey la neex nga ne ngeen ne buxante man ci bëgg yónte bi waaye man nekk na yónte ma demoon boo xam ne dara amatul du moon nga dégg ma ne indi nii taw ki la def foofu xablal baraya xubbuhu suxlul jinaani huwa akli wa zarabi huwa diini wa jinaani huwa unsi wa kansi dema nga yàgg mën a rubb sin fin kunta arjo waslahu suma jafaani mazzaqoo jëldi jihaaran axarjuni min makaani doona seen biir xëy da bu taa fi jinaani kii du mën ko yàlla bind nañ tëkkale ñi nekk ay morom ñu tëkkee leen bàyyi buñ ko tëkkalee gaay yi bu ñu oo sëriñ si nañ bër sëriñ si benn bàyyi fële bàyyi leneen la waaye mooy sëriñ si sëriñ si wala nga ne mooy sayqu suyuqi mooy saydul saadaat yi te mooy habdul illahi te mooy kaamilu sifaat yi mooy kantul baraya mooy chamratul akwaan samtu ulum wal irfan samratu ijaadi wal imdaadi wal istimdaadi cheikh al islam laaj ibrahim kooku mooy suñu sëriñ kooku lañ yaakaar kooku mooy borom gàmmoo gi kooku la ñuy préparé mbiram pour préparé ñun ñëpp mboolem taaliba cheikh ibrahim bàyyi sa xibla tey incha allah ci kanam tuuti rek mooy oto yi rang uti mbir na Cheikh Ibrahim ndeysaan dëkk wu leer ba dëkk ba nga xam mooy dëkk cosaan dëkk cosaan la dëkk cosaan la ndaxte bàyyi mooy cosaan cosaan yëpp bàyyi mooy seen cosaan doo wax naa ko léegi bi kenn siyatin xat kuntu qabla taxarrufin taxarraka min sirri maa kaana saakina eh, bi saakal ba daa tastiitu min nahwi sirrihi wa xulluqtu man zaaka sama ilahuna é bàyyi cosaan la kon dëkkam cosaan la war a dox masar bi nag fay day feeñ fii ci kaw ndeysaan ñu naan dëkk bàyyi la mooy Médinatu Munawwara mooy Médinatu Médinatu Jabara waaye Médinatu Médinatu Jabara ak Médinatu Munawwara benn dëkk la al Médinatu Munawwara nee naa ne leen ne ko Médinatu sekkare ba ne ko Médinatu Munawwara la saralaha surmati nabi mu ne lépp lu nekkoon ci mën Médinatu Munawwara rañaan na soo bindee gii lépp ñëw na radi laa woon kon Cheikh Ibrahim dëgg-dëgg mooy kan saahiru Cheikh Ibrahim rek jomal addina dama ne Cheikh Ibrahim rek soo koy xool da ngay gis ni kii moom da ngay xam ne kii moom spécial la ko yàlla bind. wallaay warabul kaaba képp kuy xool photo bàyyi nii te photo boobu lay waxoon ne ci xaqiqa falaw sawaroo nii fil xaqiqati lam yaraw siba saxsan mahbub bihi na tamato mu ne ku mën a photo dëgg ci xaqiqa su ma photo man Cheikh Ibrahima bu carte ba génnee kay feeñ moo rasul sax mooy feeñ ah gars yi loolu day na waar de hmm? mu ne ku mën a photo dëgg ci xaqiqa la wax ci nag ku mën a for ci a for mooy kan ngi gis ne kon appareil ba mooy jëm yàlla ja appareil ba pilkil ba mooy tam sasam pilkil bi parce que mooy ruu kenn du ko gis waaye nag phrase ba mooy Cheikh Tidiane bu dóoree na mooy xilaf Cheikh image bi tax taxaw lii mooy xilaf Cheikh bu kat we génnee kay kay feeñ kay mooy lan la nga fa mooy feeñ ah la fa la nga fa mooy feeñ kon ku ne xam na kon bàyyi li wax leer na ñu ngi sant yàlla baax ci ñu ngi koy ñu ngi bëgg Cheikh ñu ngi koy préparé mbooleem ku ne taalibe Cheikh Ibrahim la préparé gàmmu mu ngi ñëw te balaa ñëw am na fukki am na am na fukki fan yoo xam ne yëpp feet la muy mawlut ndeysaan mawlut kenn ku ne am nga daal defee ko sa kër kenn ko defee ko sa kër sa yi yi wële ngay tanaatu rabbi ñi naan tanaatu rabbi nag su neexee bàyyi moom na ko def ndaxte yaaram du wuy boppam waaye bàyyi dafa bind téere ba téere yoo xam ne yëpp yëpp tegu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ahlan bi sahrin mawlidi sakarana bil matadi aslil usuli sayidi habibina mubajali qad kana khayra al mursali qabla al wujudi al awali wa lam yakun min jandali li aslina al muazzali li dana fari lii day ni firi parce que lii bi nga xamoon wax dëgg yàlla ñoom ci woyu bàyyi ñun bàyyi mën na woy tanaato bu ko neexee mën na woy man na woy woy kere parce que xormaal nit yàlla baax na waaye ñun taalee bàyyi woyu bàyyi la ñu war a woy tey moo ko bind de xusi sana i minel muhibi kaatibihi barhama xeesal wara bër andaay jàpp leen sama woy te nga bay woy kenn kur moom bàyyee ko wax jàpp sama woy xusi sana i minel muhibi kaatibihi barhama xeesal wara bër kon na jàpp woyu bàyyi xam nga ahlan bi zahri mawdi ahlan mooy lan maa ngi lay ndokkeel bi zahril mawdi ci weeru juddug yonent Yàlla sasram zakara naa bil mahdi kii moo ñu fàttali peer ba peer ba mooy jëmb yàlla ja comme mooy kan mu ne aslu usul yi mooy cosaani cosaan yëpp habibu naa ma bajali kii mooy suñu soppe mi bi yàlla yëkkati bi ah mu ne xat kaana xayral mursali ki gën na yonent yëpp kañ la la gëj mu ne qabla wujude awal bala wujude awal di am la gën a yonent moom te wujude awal muy xaaluma arwaax wujud awal muy xaqatu Muhammadee moom la gën yonent xam lu mu gënee parce que ki gën ñëpp mooy yàlla moom fa la génne moom moo fa génne kon kay gën na ah, la bay woy woy bii kii jar ñu koy woy yéen tamit xat xana xeesa musa xat wujude awli walam yàkkun min jëna li kii musul jaar ci ban te ñu ñëpp ci ban lañ jaar moom rek ma jaar ci ban yonent bi kese yàlla bind ci te ñoom jaar ci suuf si waaw ah, yonent moom leer la ñun nag yàlla ban la ñuy bindee si moom aadama ban la ko yàlla bindee moo tax aadama euh, suñ ci bëggee dugg leneen lay nekkaat waaye ci gàttal daal ñu ngi gërëm gàmmoo Cheikh Ibrahim di gërëm ay w ay wëyu Cheikh ay abdou Cheikh ci gàmmoo wëy yoo xam ne boo ko déggee da ngay dem ba nga nga li bàyyi mi lan la xool rek bàyyi taxum yàgg na mu ne Muhammadu humdati Muhammadu humdati Muhammadu wasari ana tufayluhu wabni musammahu kon doom ji mi di bàyyi lay juddoo ah wuyu bàyyi la de sang jaay waxu ko de gars yi bu cool dana bëraat de waaye waxuma ko de bàyyi wax de Muhammadu humdite mooy lan mooy Muhammadu mooy sama sukkandikuwaay Muhammadu wasire mooy lan mooy sama wéeruwaay ba tey ana tofay luxu ah man asxaar man asxaar katam laa waay wam nii doom ji bu juddoo wam nii sama doom jooju Moussa maa ngi tudd Muhammad te moom lañ moom lañ moom lañ gàmmuwal léegi nag loo ciy déggee kon bàyyi mooy mutasaay moo jógee asal di daw ne Mahamadou humdati sifa génn Mahamadou wasari isma génn ana tofayloo xelafa taxaw wam nii nag këytu xelafa jur na le wam ni mu waaye ñu ngi sant yàlla baax baay di gërëm Cheikh Ibrahim di ko ndokkel ci mboolem xarakaat ak sakanaat yëpp xaw na ba feexlan gërëm Cheikh Ibrahim dagan na waaye nag ñu ngi ndokkeel yun teel Muhammad sa sa moom kan moom moom ko tey moom bis bii waaye bis bi ne ki ko moom man ko màggal dëgg-dëgg màggal ah mooy Cheikh Ibrahim xamul tax buliitu bil Mustafa xad mi ahmada mu ne abal kawni wal axlaaqi farhan wa mahtida lu tax ataani hawaawu qabla an uarifa hawa suuti bi naar istiyaaxi ahmada lu tax alluqtu bihi wa naas fi sindit kara tamatatu minu dahra iskuntu mafrada lu tax wooy sumte façan zamani fa ineen la fi xir min ibrahim muhammada ah. xaman kon lii na waar lii yii woy ko koy dégg sax nan kan may woy lii dañu war a la woy àdduna bi dañoo war a woy xool woy bàyyi di xool nan kan ma woy woy yi ñooy topp arabe yi espagnol anglais yi yëpp di way ko woy ba gis na fekk mu nekk ni ko ñuul ni ñuul koog te ni ko ñuul mooy cosaan ni ko ñuul mooy cosaan ni ko weex du cosaan cosaanu yàlla mooy ni ko ñuul maa ko wax zaato dafa ñuul xaalum arwaax dafa ñuul weex a xonq ak ñuul fi nga xamee ci xaalum asfar lañ ko doon xamee weex ak xonq ak ñuul asfar lañ ko doon xamee waaye ruu dafa ñuul dafa lëndëm mu ci guddi la mu ngi ci biir yaram guddi guddi la rawatina fasaad fu fu mu génne nag moom guddi la ca koo guddi lëndëm ci ko a taras kon yow dee ci leer kon dee ci leer réer ba taxutoon a baram du baax gaañi kon ñu ngi sant yàlla baax gi la gërëm a Seydi eh, Sall Baye Salla Ba ñu ngi lay gërëm euh, yow mi ñu may occasion bi ndax nag Sanga Ndiaye moom euh, yàlla daf ko def rek euh, moom waxkat la moom ku taal micro rek la bëgg. micro rek taal ko micro mi wax rek fii tar fii bu suba du parce que loolu mooy tabi xam daf ko miin moo tax ba ma ko waxee keroog naan dama bëgg a ñëw pour jël man loo jël tàggoo yow sa kër la jël xëyal fajar nga ñëw fëgg fëgg ma ne ma jógal ma jóg ne man dama nga man loolu laa bëgg parce que man wax ci baay du nga laa bëgg man wax ci bàyyi laa bëgg wax ci Cheikh Tidiane laa bëgg Cheikh Tidiane laalu guma ko pourtant ci mbir mu la bokk ndax tax bala nga mën waaw dafa may ne te bala nga waaw nag ka fay ne mooy Cheikh Tidiane moo tax Cheikh Tidiane mooy yaram mi mooy yaram mi toog seetaan moom moo feeñ fas mooy tamit saan nekk benn jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi juddoo xëy na maa di bi ñëw faas ga yi ko lool waaye mu bind ay wëy seytaan la yàlla may moom kenn kot ket moom kenn kot la yàlla may moom seytaan rek laa mu dugg géeju nu buutu naan fa comme yonent yi naan lépp sëcc ba mu jeex génne ko lu yàlla ah loolu mooy lan yontu bépp yontu bu génn rek yow saara nabiyan ila Cheikh Tidiane saara waliyan lu ko may loolu xam nga lan la mooy bàyyi ñes nee zahir bii la indi ba pare mu ne zahir bi géej gi zahir gii jën bu doon naan géeju saar gi kenn du ko lekk day weex a xorom mooy bàyyi ba na wax mu ne mu ne géej gi lu mu rëy rëy nii jën dafa naan de bu fa naanoon day weex xat kenn kenn kenn du ko mën lekk parce que parce que parce parce que li muy naan kon kon day weex ñu ne kon bàyyi jën yi fu ñu naanee mu ne yàlla subhanahu wa taala dafay defal ay mbalka ci biit géej gi bu asamaan tawee mbalka yooyu ñooy ñooy ñooy yàlla di fees la ci géej ga moo tax géej fépp la naka taw fépp la baaxee mbalka yooyu nag fa la géej fa jën yi xam xam ne ay wax yu ñoom dañ buñ maree day dem ci mbalka ma naan génnaat loolu moo tax géej jigéen jën boo ko jax mu génnee day lewet lu tax mu dem fa ndox moom naan moo tax waaye bu naan ci géej rek day wax xat moo ne noon nag la seytaane naan ni nga jënd bu mu tamit nekk nekk nekk génn nekkul yonent ñëw nekkoolu yàlla wax dëgg da laa xandu kon ñu ngi sant baax di gërëm yàlla kon ko ndokkeel baax di sant yàlla di la gërëm del yow ma ñu may occasion bu rëy bii ñu waxtaan ci Cheikh Ibrahima ci Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane nag yéen ñi jàngale tijaan yi nga xam ne ñu ngi war a gis yàlla amut xam yàlla amut maa leen renvoyé ci wuyu Cheikh Tidiane man waaw ci la bokk gàmmu lépp la gàmmu lépp ngay wax Cheikh Tidiane laa woon moom dafa bind abiyaat bu neex boo xam ne moom amul sax kaay ma seet daf ne du fi tu daf xatan min hadratil xëy bi fa saara awali aaxiri wa aaxiri awali wa jus yi kulli wa kulli jus fa surtout ana huwa wa huwa ana mbokk yi seetaan nee na fa surtout ana huwa wa huwa ana waaye min haysu huwa laa min haysu ana fa ina saaka law saalta nii alfa alfa masalati ñoom ñëpp laa jëmtuk bi jaay bi waxeet surtout kal misbaayil law shuilan mi jamil masabi maa naqasak mi daw sa in walay hamdu bàyyi na alhamdu mutlaqan lisaatil baay sama gars yi ñu ngi fasan bal bi rek alhanu mutlaqan li zaati albaari suma salaamuna ala almuxtaari bashir wujudi markaz al asraari sirr suuni mañ ma anu xaq doomi qadar azim ñu ngi nuyu ñëpp di leen zaara di nuyu uma bi yëpp gars yi mit na bàyyi i mit na bàyyi daje bi mit na bàyyi la taalib mit na bàyyi góor jigéen mit na bàyyi saakaroona saakaroon yëpp sikar a bàyyi a saakaroona alquddama fayda tijaanam kulum xumaam sikarkat yeeg waxtaankat yeeg muqaddam yeeg taalibe yeeg muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ak foo mën a jóge a le monde entier wuyul bàyyi parce que bàyyi dama ci monde bi yëpp wa tayamani hubbika sirtu mu jam jima haala bade wal ajwa aromi wisala fa khadarta awtani wa ahli wa utati ajubu fala ko kattu qalala bi khawla tawran aw bi fuma bartan bi badar fasikhan usalla bi bisika yawman suba yawman tajawla bi khair abqi hunaka jamala kii mooy Cheikh Ibrahim kii mooy oote nañ dem gàmmoo ji mu ne këram ah ah nañ dem ko wala gàmmoo ji wër na wër na àdduna bi yëpp li pekkee na min kantuna bi siini naayun wala xal wa taddoo xar abbantari haala ah lii gars yi lan la bàyyi di wax bi yoofin li Congo min doala wa maqasi ta asimi o mun yeti lan la bàyyi di wax ñu ngi leen di sant di leen gërëm woyu baay duñ ci jeexal woyu baay du jeex ñun woyu baay dañ buñ ko si wax bàyyi dañuy dee wet ndaxte bàyyi day efface nit gis nga say waxtaan bàyyi dafa ne waxtaan waxtaan koo bàyyi fii yaa ngi waxtaan baay yow mi fa waxtaan bàyyi dafa ne billahi waxtaan koo bàyyi bàyyi moom boo koy laal rek muy efface la tam sol xamaa la su ko def soo waxee ne waxatoo bàyyee wax léegi nag te bàyyi mu lu ko noonu la ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen ndokkeel bàyyi kontaan nañ ci yow may nga occasion bu rëy occasion bu rëy nga ma may bu rëy rëy rëy rëy yéen yàlla dafa la jàmm yéen yàlla barkeel yéen yàlla aar la aar sa njaboot yàlla may la fanu gudd ànd ak wér yàlla yokk sa yokk sa lijaaba yokk sa martaba fanu gudd lool ànd ak wér alal ju bëri lool ànd barke wërsëg wu ta nooy ànd ak xel mu dal ak xol bu dal ci ngëm yàlla ak cër yu wér ak dund gu teey yàlla yàlla xol ba ti yërmandeem tax loxo mu tedd bi yëkkati la aar la may la fan ak wér may la ndam ci sa liggéey bi yëpp ba xam ne yëpp xam ne yow yaay assurance bu gën a mag ci mbir na Cheikh Ibrahim yal yàlla may la ko yal na defal ko zaahir ba kër isa wala xiqaab wasalaamaaleykum wa rahmatulah ba jaajëf Cheikh Ibrahim laylatul mawlid allasi kaana lidi ne sororon bi yawmihi wa diha salli ya rabbana wa sallim ala ma هو للخلق رحمة وزواء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وضحاء صل يا ربنا وصل ولما هو للخلق رحمة ليلة المولد الذي كان لدين سرور بيومه وضحاه صلي يا ربنا وصلي على ما هو للخلق رحمة وتوالى البزر الهوات بأنقار ولد المصطفى وهاك الهناء